nag jëm na ci këyit yooye ma daal loolee kay jamono mooy li nga xam ne daal mu fas na koo def ci réewum Sénégal société civile bi ñenn ci ñoom daal di yëkkati kàddu daal di jëmale fànn gu ni ne daal loolee daal mbir mu baax la moo xam ne daal bu ñu ko taxawale ci réewum Sénégal maanaam daal ay jafe-jafe yi nga xam ne daal mañ koy jàngonteel mën nañu jële waaye itam li xam ne nag jëm na ci wàllu guerre ñi nga xam ne daal dañuy soxla ay këyit am ne nag la ñu gis moo di loolee lu baax waaye daal bu mu tax lépp loo xam ne jëm a loolee nekk na ko Amadou Ba da ko bëgg jël loolee nag yéen bi ñu xamal ne ñi nga xam ne daal ñoo ànd ak moom ñoom gisee wuñ ko noonu ndaxte dañoo xam ne daal poste bu yees yoo xam ne daal kàddu yàqkat la yu ñaaw source di ñu xamal nag Aly Ngouille jamono ji nag xëyee ñu ne nag soppi nañ ko yóbbu ko feneen bu mu wetti kenn ndaxte jamono ci boo moytuwul police bi ak gendarmerie xamal ne ak boo xamal ne ñoom kay jamono ji wooluwaat nañ leen ca pale ba ku ci nekk am na lu ñu leen dénk yéene bi di laas du ñu xamal ne kay Macky Sall kay jamono ji ma ngay formé gouvernement boo xam ne moo ko gën a jege la tribune yéene kaay ne ko may ma ma yeggale Augustin Tine ak Abdoulaye Ndéné Sall ak leneen bëri na ñoo xam ne jamono moo waa Touba ak ñi nga xam ne waa Casamance loolee nag def ko loolee nag dañu koo moo koy tëj waa kër ga ne lànk ne waa kër ga daal kenn du fa bougé waaw maanaam daal daf leen a jàppoon otage daal di yor paakaam yéen bi dañu xamal ne mbir kay ba mu di jot la tàmbali te mbir xaw naa yàgg ndax ba ñu demee ba six ci ngoon ca la nga xam ne daal ñoo di takk der yi doog a waa jooje nga xam ne dafa kër yor paakaam ne kenn du génn kër ga El Hadji Ousseynou Ndiaye